fi toll ni ñu ngi ñëw di tëj ñeen ñaari weer euh, suñu nekkaay fii vraiment di sant autorité religieuse yi sant autorité administrative yi di sant autorité médicale yi di sant autorité locale yi ñi nga xam ne ñooñu accueillir fii euh, jox ñu fu ñu dëkk vraiment manqué wuñu dara toog di ñu toppatoo ci lépp te lépp daal vraiment ci su euh, l'autorité du chef d'état-major général des armées a et directeur de la service santé ñi nga xam ne ñooñu fii yi vraiment liggéey nañ dans de bon condition avec une bonne collaboration yàlla nañu yàlla may rek ñu fekkee bay fêter fin Covid ci région de Diourbel mais également dans tout le Sénégal. ñaar fukk ba non téeméer ba téeméer rek juróom fukk par par par bis depuis ba fi mu toll nii mi ak ñaari weer daanañ def ay rajo daanañ def ay analyse daanañ def ay consultation ay garab yi ñu yoroon aussi daana ko may population yi mais daal li ci gën a am solo. mooy li nga xam ni population bi accepté nañu teral ñu dalal ñu mais ay surtout autorité religieuses yi autorité administratives yi autorités locales yi mais surtout autorités médicales yi nga xam ne suñu ay collègues lañu vraiment encore une fois de plus ñu ngi leen di sant di leen gër au nom du chef d'état-major des armées au nom di directeur de la service du directeur du service centre des armées ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ngeen ñëw ak yéen ju rëy nit ki bu yéene yéene ju rëy ju baax yàlla àggaleel ko yàlla njëkk lañ njëkk a sant parce que lii lu rëy la ngeen am fi lépp ñaari weer bis bu ngeen di xëy di faj nit d'une manière générale faj lépp ñaari weer yàlla population bu toll ne Touba ay nangami million ñu ci bari nañ bëgg a fajoo manu seen doole mayu leen ko te wér mënta ñàkk pour woon Covid bi itam nit ki faaw ñu di ko faj faw ñu di ko taxaw loolu doomu moo ko laaj kon bu ngeen jëlee seen matériel jël seen personnel ay colonel nekk ci ak ñëpp ba ci suuf ci soldats yi seen service de santé ngeen ñëw ci dëkk bi liggéeyal fi Serigne Touba kon Serigne Touba moo leen di wax jaajëf Serigne Mountakha moo leen di wax jaajëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo leen di fay ndax lu ñu fa def moom lañ ko defal kon cant rek lañ ci am <clears throat> Serigne bi kon nee na bu santee sunu borom sant leen ci li ngeen def. ñu ngi gën a santaat Serigne Touba bi nga xam ne moom moom dëkk bi sasoon dëkk bi moom kese jenn jëmmam bay indi ñaari taalibi ñett taalibi ba muy indi kër benn kër ñaari kër ba dëkk bi tey demee nii mu demee dafay wéetoon moom kese ci suufu randam ci suufu bébam ay gaynde ko doon wéttali ay rab yàlla mu wéttali ko boroomam moom di jaam boroom di ko ñaan ba liñ ci gis rek doy na sëkk te moom nee na lii ñu ci gis du dara ci leen doon liggéey du dara ci leen doon ñaan lii ndax àdduna tuutee fi xaj kon tuute lañ ko fi andil kon jëpp nañ ne képp ku ci ko yëngule fii boo liggéey liggéey fajam fayu yàlla am ngi foofa dana la ci sedd te foofa ku ñu fa sedd saxol sedd kon loolu kese doy na sant yàlla seen liggéey bi jub na rafet na réy na ba léegi nit ñaa ngi ñëw ba tey am na ñu xëy si laaj docteur yi loolu kon ngeen xam ne seen mission bi réussir na loolu de naa sant yàlla jóg jëm ci lu baax yàlla defal la jàmm dimbali la ba nga def lu baax loola ba mu kawe njort kon na xam ne yàlla nangu na la nga doon def yàlla nangu si jëf na sant yàlla sëñ Muntaxa nee na sant na leen gërëm na leen dëkk bi ak njabootam fi nekk waaye yéen ñi ñëw it ak njabootam ngeen liggéey ngeen liggéey bu rafet bay dem yàlla leen yàlla fay ci barke Sëñ Tuubaa